ci loolu la ñu nekk nii depuis le mois de juin ci ci anam boobu faut que ñu situer les responsabilités guichet unique portuaire électronique mooy loo doon def ci ay papier nga jóge sa kër dem seeti douane jóge douane dox dem seeti Maersk Line jóge Maersk Line dox dem seeti sa transitaire jóge si transitaire bi doom dem dox dem seeti DP amatul sa kër ngay toog wala sa bureau yor sa ordinateur war a def loolu yëpp ci benn toogaay ci ay minute ci ay diir gu gàtt nga def ko yor sa këyit dem jëli sa conteneur loolu mooy guichet unique portuaire électronique moo desoon ci paccu gestion port ci loolu nag euh, port dafa lalu aussi ci ay conditions sûreté ak sécurité port économie Sénégal mooy xolu économie suñu réew xolu koom-koomu Sénégal ci téeméeru activité économique yuy dugg ci Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yi fi lay jaar quatre-vingt-dix pour cent li ñuy am ci recette douanière fii ci port bi lay jaar port bi port multifonction la ci port bi am na ay un million de personnes yu ciy jóge tous les jour jóge Dakar dem Gorée wala jóge Gorée dellu Dakar muy solution guichet unique portuaire solution boobu nag tey li tax mu am njariñ mooy dafay ñëw mottali li nga xamante ni nii moo fi jot a am muy booy indi dugal marchandise ci réew mi dafay am ay kayit ñu lay laaj loolu jot nañ ko regle avec Orbus dana am loo xamante ni it am na ay yoon yu ñu war a jaar ci côté réglementation douanière loolu ñu ngi koy def ci anam bu mucc ayib ak suñu système bi ñuy wax système gaynde Euh, euh, def formalité yi nag mbir la waaye beneen bi ci topp te am solo aussi mooy fexe ba nga xamante ni nii marchandises yi def seen formalité dinañu mën a génn ci port bi ci nu mu gën a gaawee. mais le nouveau directeur général bu ñëwee ba léegi dafay concerté ak les acteurs pour xool nan lañ gën a accélérer les procédures moo tax concertation yi nag moo am ne tey ñu mën a lancer guichet nit bi pour que. congestion bi nu mën a am au niveau terre et au niveau mer mën a gaaw pour que nit ñi mën a am des gains économiques sociaux mais également euh, financiers. waaw ci wàllu kaarange bi am na solo lool ndax euh, xam nga bu doon kayit mën nga ko soppi am loo ci def wala nga wane ko feneen boo xam ne bokkul te nit ki balaa muy xam ne dëgg la du dëgg day jafe si moom. léegi QR code bu nu def ak document électronique yu nu def foo mun munti toll ku la wan euh, kayit boo boo xoolee QR code bi rek di nga xam ndax li dëgg la wala du dëgg donc si ñoom nu mun ko xam. te signature électronique bi nga xam ne tam amul woon léegi am na donc kenn du mun kenn du mun wax ne maama defuma lii ku def dara dina ñu xam ne yow la euh, ba pare yeneen fànn euh, euh, kaaraange nag mu ngi ci wàllu technique bi boobu dañuy jël bonne pratique rek mooy li nga xam ne moom la banque yi di def ak ñëpp ñi nga xam ne li ñuy gérer dafa sensible nu boole ko tam si plateforme